mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm jërëjëfati mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nii ini mbokk yi ni seetaan mbokk yi ni deglu ni ñu ko xon rek feeje kanamu ko Cheikh Ahmadou mbakem Seydou Khadim mbake rek ci biir kër gi waaye ci biir trondo Seydou Khadim mbake yi tay talata le 9 juillet 2024 japp ñaari fan ñetteelu guddii ci xarit di wéru muharram bis bi nga xamni ci lañu fatali ko jambar l'islam nekkon kenn ci ñabatu Cheikhul Khadim cheikhna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di Cheikh Abdou Khadir Mbacke ñu naan yàlla suñu borom yokku nga nelem ci darajey Cheikh na Ahmadou Bamba mu nekkoon nag ñeenteelu xalifab Serigne Touba Khadim Rasoul waaye nekkoon fi imam ba tey bi mu demee imam la nu ngi ñaanal jàmbaar ja Serigne Moudou ma ko wutu woon yàlla na yàlla yokku leeram waaye ñaanal Serigne Cheikh mu yàgg fi la tawér ak si na nag ca barab bi nga xam ni moo di kër Serigne Joogu Mbacke fekk fi kenn ci njabootug Serigne Abdou Khadir Mbacke di mooy Mbacke baax baay jàpp soxna mooy mbàkkam si Abdou Khadir Mbàkke soxna moom ca kër sëñ Njoogu Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lépp day dajee ci baax te baax gi feeñ na ci jataay bi feeñ ci xar kanam bi xamaa kon ci tënk xam ni faj bàkkaar moo ca gën a a nu ñaan yàlla yàlla na ko yàgg a teewati bare bare ci darajay Seexuna Ahmadou Bamba xamaa kon Seex Abdou Lahad bëgg noon a xam rek diirub ñaari fan yi ñetti fan wala ay waajtaay bi nga xam ni baax baay mi nga xam ni bisu baay bi ñor na ko lool bisu sëriñ bi ñor na ko lool naka la ko doon waaje ak waxtu wi tembe fi ñu toll ci programme bi la moo des ci programme bi ñaari kàddu rek la muy waajtaay wi ak jeexantal bi Cheikh Abdoul Ahad yaa ngi jàkkaarloog jant bi TV ak jant bi FM ak Ceñeen FM ak Lerga FM fii ci Touba Mbacké kër Cheikh Abdou Khadir Mbacké kàddu gaa ngi nii alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي طبيب قلوبنا وأجسامنا وأرواحنا وعلى آله وأصحابه وخديمه شيخنا أحمد الخديم عليه أكبر رضوان الله تعالى الباقي القديم وعلى جميع الأمة كلهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد يو سين Gora كن ñu آه، فينيو ياك fay عند yaak ñi nga àndal ñëpp ci Jant di am mbégte bu baax ci seen teewaay ci bis bi di sant bu baax waaw ci tënk rek ni nga ko waxee euh, bis bi moom li ko waral rek mooy fàttaliku suñ jàmbaar jooju nitu yàlla bu baax boobu sëriñ Abdul Qadir Mbàkke mi nga xam ne juñu nga ko léegi bi mu gënee jamono sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa wax maam Cerno Birahim ne ko diir bi nga génnee ngir tuddi ji ko euh, ba baa ngay wàññi képp koo fi dajeel suñ borom jéggal na ko loolu doon dara ju rëy rëy nga xam ne dañuy wax ne maam Cerno Birahim itam radiallahu anhu ci ak mbaaxam dafa guddal yoon wa ba nga xam ne laataa muy wàññi ko ndax sëñ bi dane ko bi ngay demee ak bi ngay wàññi ko laataa muy wàññi mat na juróom benn weer diggante bi mu tuddee sëñ bi ak bi muy wàññiku ngir bëgg rek man fee dajeeg ñu bari ba ñoom ñëpp ñu jéggal leen ndax loolu la ko sëñ bi wax ko koo ci daje rek jéggal nañ ko ba bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj loolu moom lu wér la sëñ bi ko waxoon euh, te euh, waaw waaw mooy ci bis bi loolu nag ñu ngi ciy am yaakaar lool ci ne suñ boroom ni mu baaxoo jëflante ak sëñ bi mooy lu mu ko xas jox dootu ko nangoote am nañ ci yaakaar lool kon ci ne incha allahu taala noonu lay wéyee saa bu bis bi delsee eh, képp ku jox jëm ci bis bi danañ la jéggal koo dajal itam incha allahu taala danañ ko jéggal ñu ngi am yaakaar lool incha allah eh, moo tax nag loolu doon lu màgg ci soxna si doon lum fonk itam eh, ndax amul lu dul moom bis la boo xam ne lum am rek ci la ko amé motax kon lu rëy ci mom la lu lum lum jox yitte la waaw euh doo wax ay fana ngi ni way ay wéra ngi ni yo xamné sa saa su ne ci lay xalaat ci lay dox ci lay lijjanti waaw euh lépp nak ñu ko ànd ak njaboot geek moy mbokk talibé yëpp rek waaw ñun ñëpp ñoo ànd lépp muy njabootu boppam gi ak mboolem soppe yi ak turandoo yi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp daal ñoo booloo ànd ànd ak soxna si ci bis bi lépp rek ngir xam ñor gum ko ñor ndax bu fekkonte ne moom soxna si joxu ko yitte jooju ba ak njabootam ak i soppeem duñ ko mën a jox yitte jooju kon yitte ju ci am rek ci moom la tukkee kon ni ko waxee rek mooy euh, nan la ko doon waaje mooy loolu waaju kuy jëm ci loolu la ñor ni mu ci nekk tamit mooy loolu ba tey rek nekkiinu kuy nekk ci mbir mu la ñor mbir mu la yitteel mbir moo xam ne amoo leneen lu dul moom euh, bu ko defee nag bis bi nag li ci gën a am solo mooy euh, alquran yi ñuy jàng xasida yi ñuy jàng di ko def addiyee sëriñ Abdul Qadir ngir sante ko ko ak ñaan suñ borom yokk ko ay leer ak i ngërëm te gën ñoo sédd ci barkeem loolu tamit tabaarakallaahu euh, lu ñor soxna si la lu ko yitteel la euh, saa su ne da koy bàyyi xel def nañ def nañ ci ay taxawaay nañ ko daan defee euh, tabaarakallaa ci njiital sëriñ Moustapha Mbacke moom sëñ daa moom sëñ ak sëriñ Njóogu Njaay ak sëñ Mamoor Dem ñooñu nga xam ne ñooy taxaw wàllu njàng mi tabaarakallaa def nañ ci taxawaay yu am solo Euh, ba tey am na ñuy yëngu ci wàllu xaside yi tamit bi ci beneen bi ci topp mooy wàllu bernde yi loolu itam euh, ñu ngi ci euh, daanaka mën nañoo wax ne tàmbali na ci démb ak bët ki démb waaw léegi moom it mu doon lu ñor soxna si loo xam ne moo tax itam mboolem taalibe ak soppe yi ñëpp ànd ceeg moom. Euh, nee na mi ngi jotli ak cant ci noonu nag mi ngi jotli ak cant ci mboolem ñi nga xam ne feeñal nañ ci seen yéene lu ci waay def itam day nu ci kaw gi ni moom mii nga ko defal waaye na nga xam ne sa bopp nga ko defal ndax sëñ Abdou Khadir nga ko defal te moom lu ko waay defal rek sa bopp nga ko defal euh, mi ngi leen ci sant bu baax kon te di ñaan yàlla na ko suñu borom nangu waaw bu ko defee noonu lay wéy rek incha allah ziar yi day woy ba guddi incha allah bu ko defee itam ñaare euh, ngoon gi am nañ pas-pas bu def fi waxtaanu diine incha allahu taala gannaaw tàkkusaan gi lu mel ne ay siiseer yooyu incha allah taala waaw waaw waaw ñu ñaan rek yàlla nañ ko yàgg a teewe ñu yàgg ko ànd moom te ñu ci am tawfiix ak ndimbal lu kawe njort ki Cheikhul Xadim jërëjëfati bokk yi nga xam ne yéen a ne jàkkaar lool jaajëf Cheikh Abdoul Ahad ci kàddu gu soxna moom mi Mbàkke baax baay ñu ngi koy ñaanal yàlla su borom yàggal ko fi te dolli gërëm di yóbbante siyaara comme nuyoo ca mbokkam ma soxna Mamate Ba Mbàkke Falilu moom soxna Ndaama Njaay ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér ku kër gi xam ni kër googe ak kër gi du ñaari kër genn kër la njaboot gi genn la mboolem taalibe yi nekk ci kër soxna Mamate ñoom suñ pap gee ñoom ñëpp ñu ngi ni takk laxasaay nekk ci wetu soxna moom i Mbàkke baax baay ànd ak moom bis bi nga xam ni ci lañ di fàttali ko jàmbaar ja Cheikh Abdou Khadir Mbàkke ilimaan ilimaan yi di siyaare askanu Mbàkke Mbusoobe di siyaare ñëpp di jox dig dig daje inshallah yeneen di jataay da jaajëfal kulli koo xam ne teew nga fi waaye da ñaanal jàmbaar ji toog soxna mooy baax baay yàlla ko sa borom yàggal loolu te wéral ko wax naa ko ni ko léegi kër gi mbooloo mu bari meeg may ma ma jàll ñëpp li ko waral la juddu bi ci la waaye la kuy sa bàyyi si Abdou Khadim kuy sa maam sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nii la nga mën a mel ci ngor ci diine lislaam ak teg tànkam ci lu leer leer nañ ak lu wér noonu rek lay doxee ku ja jëmm ji xool ko jàkkaar ak moom saxal dem ca xar kanamu jàmbaar ja Cheikh Abdou Khadim Mbacké man faj aajowee ñu ngi ñaan yàlla jàmbaar jooju yàlla na ko yàlla fayal waaye soxna moom ñu ngi dékkaat suñu loxo di leen sàkkuwaat ñaan nga ñaanal aajo yu yàlla gën a faju ci darajee sa baay bu baax ba waaye ci barkab Cheikhul Khadim sa wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bokk yi ni jàkkaar lol bokk yi ni setan bokk yi ni deglu ni ñu ko xon rek euh, tay di bis bi nga xamni moy talata di ñaari fan japp ñette guddii ci weeru muharram waye di le 9 juillet 2024 ñu ci fatali ko Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacké mi màggalu tay gi ginnaaw bu ñu siyaaree Serigne Cheikh ak ngeebal gep ñu ngi ñaanal ni ñepp jamm ci dara jey Serigne Touba Khadim Rasoul fi nak ak nañ fi ci kër Serigne Mor fekk fi njaboot yi ñu ko ñepp magal rek non la ko magal muy jangal Alxuraan jàng khasida waye berne ak i basmala istighfar ak mboolem teranga jo xamni jëm na ci bis bi muy bisu Cheikh Abdou Khadir mbake xama fekk nañu sëñ Sam Mbacké tok ni bu ko dee rek ci cadeau sëriñ Mor danañ jébbal sëñ bi sëñ bay sëñ aladi Mbay mu andi nu tuti ay leral rek ci bis bi ci taxaway bi nga xam ni njabootug Mor soxna amal nañ ko fi ci keur Cheikh Abdou Khadir mbake muy lo xamni ne la bis bi bu dikke waxtu ne sa su ne dara du ko fekke seen ñaan seen alcorane seen khasida kon xama dañu baye ak seigne aladji rek bu ko defé mu ubi ñël cadeau gi joxal nako seigne Sam bu ko doy rek li ci cadeau yi mu matlu ko waaw ons billahi minas seytaan rajim comme ni nga ko waxee rek seigne bi ñu nek fi ci kër seigne Cheikh May mom soxna May mu la tukubra seigne Cheikh May nak defe naa ne ñëpp xam nañ ko ndax moom soxna May mooy way juram di magi Cheikh Abdou Khadir euh, ku nekk nag xamoon na digganteem ak Cheikh Abdou ndax sax Serigne Cheikh Cheikh Abdou Khadir da koo jëloon def ko ab taawam waaye nag la taxoon mu def ko it mooy ragal yàlla gi ak maandu gi ndax ku ne xam na ni Cheikh Abdou lu jëmul ci yàlla jëmul ci yonent bi sax euh, ñorul woon Cheikh Abdou looloo taxoon nang mu tànn ko jiital ko def ko mu dip tawam def ko muy léppam nag ci ci tudd yi ci taxawu doomu aadama yi lépp Serigne Cheikh rek ko ci doyoon buñ doonee ñaar wala ñu doon ñett da ko naan demal ma ci gii ma dem ci gii lu ci lu ci mën am muy ku génn àdduna wala ku ñuy tudd loolu nag ragal yàlla gu nekkoon ci Serigne Cheikh May moo ko Serigne Cheikh May wax nañ ni bi nga xamee ne bii na ci di jóg di taxaw soxna si da ko jël yóbbu ko ci sëriñ moor Soxna di ko ziyaare am ay bernde yu nekk ci wetam mu jóg taxaw bi mu jógee taxaw bañ defee ne day daanu ci bernde yi mu wan ko ginnaaw daal di daal di daal di wan ginnaaw ndey yi Serigne Mor Soxna daal di seedeel soxna si ne ko jëmm ju ragal yàllaa ngi nii kooku mooy Serigne seex May Serigne Cheikh May nag ak ragal yàlla am moo taxoon Cheikh Abdou Khadir fonk ko di bokk ak moom añ ak reer. lay leen wan nax ren bu dee taw bu dee taw euh, euh, euh, ngelaw Djily Touré mooy jaar ci bunt bi jaar ci kër soxna may gi ba ñëw ci moom woo ko am na fi am at daf ko wax ne ko mbàkke bu ma sañoon ñu jéggal ma reer bi xam nga ne ñoom seenu reer du ab reer ndax duñ lekk rawatina moom waaye cër bi mu ko joxoon rek moo waraloon loolu mu nekkoon nag jëmm joo xam ne lislaam rek moo ko ñoroon ñii fi ñëw léegi ñuy wax ne état bi dañuy bale moom ba mu dalee bale yàgg na ndax lim xamone moy jangale alquran dimbale ay doomu adama kër ak boppam gii day balaa koo lijeenti a dafa lijeenti doomu adama yi nga xam yi dañoo dañoo tumuranke su mu mas su masaana xey te gisul kum wara dimbalé day am lu ko su yeewoo limuy def moy tok fi di nek jaay yalla yi nga xam dañoo new doole bu ñëwee mu lijeenti ñep jappalé len taxawu len lijjanti len ba nopi soog lijeenti lijjanti këram boppam gi dan na wax nak ni ñun ñii day biñ fi doone ay tut tànk daf daan daf ñu daan wax ne bu biñ tàmbalee ami njaboot bu ñu fi ñëwee indi fi suñ njaboot mu war a dal alxuraan daf ñu daan wax ne man de bu ma sañoon ni ma leen defoon noonu laay def seen njaboot yi waaye nag mënatumaa jàngale te it sama daara jee ma am tool yee ma am la ma fa njëkk génne mooy daara su ma mënoon am fukki kat fukki jàngalekat yu may fay yu ma di leen fay danaa leen fa yóbbu yóbbu fa seen njaboot yi ngir ñu jàng fa alxuraan waaye nag yéene joojee mu amoon sëriñ Abo mu baax mii eggale na ko ndax dem na ca tool ya ba def fa daara di fa jàngale alxuraan kooku mooy sëriñ Cheikh May sëriñ Cheikh May nag ñëpp a ko bàyyi woon xel way juróom yëpp bàyyi woon nañ ko xel muy sëriñ Abdou Khadir muy sëriñ Mourtala muy Cheikh Mamadou Fadal muy képp kum bokkaloon sëriñ Touba bàyyi woon nga sëriñ Cheikh May xel ngir yagal ragal yàlla ga bis bis bi muy bàyyee julli ji ci jumaa ji li ko ko tax a bàyyee ci booba tàmbali naa tële waaye teewut da daan jéem a dem ci jumaa ji waaye dafa am bés mu nekk ci wetu minbar bi fi mu daan jullee Cheikh Mourtala ñëw julli si sëlmal jumaa waaxu ba fekk ko fi mu daan nekk nuyu ko mu nekk mu ne tey laay mujj ci tey laa fiy mujj kooku mooy Serigne Cheikh May yal na yàlla yokk leeram ñu ngi ñaanal yàlla nag doomam ji di sëriñ moor ak njabootam gii mu fi bàyyi damay wax ni Serigne Cheikhouna mi dim caat képp bu ko fi sëriñ seex May bàyyi woon doy nañu yal na guddal seen fan Serigne Mor ñu ngi koy ñaanal yàlla ci kattanu maamam maam Mor Diarra ak Serigne Mor Soxna sëriñ Cheikh may gàttulu fan ndax am na quatre-vingt-quatre waaye kenn doyalut ci moom bi mu fi jógee dañoo wax ne kan moo ko jooy ñu ne lislaam a ko jooy ak alxuraan dañ ne Cheikh may kan moo ko jooy ñu ne lislaam jooy na ko alxuraan jooy na ko ndax lislaam rek moo ko ñoroon ak alxuraan mu doonoon jëmm joo xam ne nag xamoon na kan mooy ay way juram xamoon na ne soxna Maymunatu Kubra mooy way juram xamoon na ne Serigne Mor soxna mooy way juram cër yañ amoon nag mu teg ci tànkam def def ko yoonu siraatal mustaqima ndax Serigne Mor soxna rek moom la yàlla defal moo njëkk a toog ci axlu Mbàkke xilaafa 1921 la Maam Mor Jaara nelaw vingt vingt 22 cinq 24 25 26 27 Serigne Touba soog a wàccub liggéey Serigne Modou Moustapha soog a toog mu xam ni koo koy way juram mooy moo moom la war a roy mu di ko roy mag ñi suñ jur yi dañ ñu daan wax nañu Serigne Cheikh Maïda képp ku xam Serigne Mor Soxna boo demee ci moom day bëgg a fanaan ak yow ndax li tax muy bëgg a fanaan ak yow day bëgg nga wax ko Serigne Mor Soxna kon kooku foofu la tegoon tànkam te Serigne Mor Soxna boo seetloo ca way wa Serigne Fallou dafay wax ni Serigne Mor Soxna bi may may oto mënumaa amu fas kon xam nga ne Serigne Mor Soxna kenn la woon da daan joxe wax na ca way wa ne joxe ko tee miire këram joxe ko tee jëlub cëram kooku mooy Serigne Mor soxna di maamam mu xamoon ko nag tegoon ci tànkam xam ni soxna may munatu kubra mooy wayjuram Cheikh Abdou Khadir mooy nijaayam mu mu mu mu mu dox mu taxaw taxawaay bu rafet bi mu waroon na taxaw ci diine ak lislaam kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bisam bi yàlla yokk leeram képp ku fi teg sa tànk yaa xam ajo joof indi woon yal na la ko yàlla saafaral te am nañ ci yaakaar ndax këram gii day jaamu yàlla rek la fi nekke woon kon mën na maa wat ne kër gi képp ku fi jugg te indaale fi ajo boo génnee boo boo fi génnee ajo ji yàlla dana ko faj ci barke yonent bi barke Serigne Touba barke Serigne Cheikh May wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu nag Serigne Sam mbakke mii ma dendal nga xam ne moom it Serigne Mbacke Ndok mooy way juram Serigne Mbacke Ndok bokk ak Serigne Cheikh May way jur muy Serigne Mor Soxna moom it muy cërub ni ma doone cërub kër gi moom ni mu ni mu doone doom ci kër gi ni la doone cërub sëñ Cheikh May sëriñ Saam ñi ngi ñaan nga yàgg fi ci sa rakk yi yàgg leen a taxawu ci barke Mam Mor Jaara barke sëriñ sëriñ Mor Soxna jërëjëf Mbàkke jërëjëf sëñ Alaaji ci kàddu yu fasante ko kàddu solo yooyu ñoo ko déggandoo xam naa nu bàyyee kàddu gi rek sëriñ Saam mu tënk-tënk mu gàtt rek bu ko den tàggatoo waajal nag uh, yeneen i jataay ak yeneen barab yoo xam ne war naan faa yegg léegi ci jant bi TV ak jant bi FM Thiéniere FM ak Lergui FM ci ndigalu sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Aliou Mbackeem Cheikh Moudou Moustapha nu teew fii ci kër sëñ Cheikh May waaye fekk fi sëñ Mor rek di ko ñaanal yàlla Mbacke gu ànd ak wér sëñ Sam bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yëpp leen siyaara ak barke borom bis bi ñaan yàlla defal ñu njëggal ak yërmande ndax bis bi bisum njëggal la. keroog bi sëñ Abdou Khadre gane àdduna la sëñ Tuubaa waxoon maam seen wax joojee keroog njaarim lu jógee ñëw ndaam tudd si ko te fekk booba dafa amoon ci nit àddina yi ku ñëwoon soxla sëñ bi ci bis boobu sëriñ Tuubaa wax maam Cerno ne ko sëriñ Tuubaa wax maam Cerno ne ko demal ndaam ci soxna Amintu kooke mu am nga tudd ko Abdul Xaadir di wax ko ca wax nag ci ku mu dajal buy dem ak bu yoo ñëg lépp ak njëggal moo tax jarbaatam bii di doomam sëriñ Cheikh May bisam jël ko boole ko bis Sëriñ Abdou Khadre bu ndax la xam ne lépp Sëriñ Abdou Khadre la mos koo génn li Sëriñ Alaaji Mbay rek noonu la dana yàlla taas ci barkeem ak barke waa Sëriñ Tuubaa yëpp te nangu ñu lépp luñ ko fi ñaanal jaral ko ca asalaamaaleykum <laughs> euh, jërëjëfati mbokk yi ñoo ko déggandoo kàddu yi tënk na waaye lëm na lu bari waaye lang na lu bari waaye matal na lu bare bari ñu ngi jox diggéen di ngi daje sa yeneen i jataay di ñaan yàlla yàlla na ko yàgg a teewaat yu bare bari ci barkab Seexul Xadim Seexuna Ahmadou Bamba Xaadim Rasul suñu laaji jërëjëf ci kàddu yi waaye sëñ Saam jërëjëf Mbakke lii rek moo di bokk waaye li mooy ànd bi lii itam la sëriñ Tuubaa seen maam bëgg waaye itam lii la Seexul Xadim Mbakke bëgg nu ngi ñaan yàlla kon yàlla na tënk ci bëgg-bëggu sëriñ bi jeex ci tàkk ci daraje Seexul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm